waaw yëf yi li ma si xam mooy wax ji bari na trop li may dégg ci presse bi ak li am nekkul benn. comme nii nga def nii mooy mooy mbir mi feebar bi ñi ñi mu dal sax dëkkuñu fi ñooñu ay gan lan fi. waaw wax ji nag dafa bari ñi naan waa Caare Géej Caare Géej dalu fi kenn Caare Géej dalu fi kenn waa Caare ñaa ngi nii ñu ngi dem géej chaque jour man démb laa mujj dem géej. waaye affaire bi daal feebar la boo xamante ni. sunu borom mën nañ ne moo ko fi indi waaye ay boto ñoo ko sotti ci géej gi maanaam ku demul foofa doo ci am man loolu laa gis ndax affaire bi ñi nga xamante ni ñooy def fele-fele ñoom la affaire bi dal benn doomu caare yi man dégg guma ko ci bu ci am ñi ci am ñëpp ay étranger lan ñu ngi dëkk ay jogo ay faas booy ay ay ay ay ndar parce que ñooñu dañoo ñëw fii ci dëkk bi pour di def affaire fele-fele fele-fele mbaal la boo xamante ni ku bu sooboo ci géej moom lay tax ci mbaal boobu lay tax mbaal boobu nag ñi ko am ñëpp la la affaire bi dal ñu ko amul nag dalu leen. vraiment c'est un cas problème qui existe ci dëkk bi ah chez moi dafa am man sama frère dañ woon sax dañ leen di parce que am naa presque soixante-dix ans mosuma fee gis cas mel nii dama daan dem di mbaal di nekk pêcheur laa woon avant muy dem dem école di jàngi. piseur laa mais lii maa ngi ko soxla dëkk bi. comme ni mu ko waxee rek man mi sax yéex naa ko dégg parce que bi may ñibbi ci ngoon ay ver vingt heures laa ànd ak euh, benn waay mu ne ma yéen seen kaa seen seen kër am na ci kaa yi. man ko comment nan la fa amee bon ci diggante boobu rek man laa jëlee décision yi bu ma ñibbee man comme que xam naa ne sama sama grand frère nitu kersa la mënul dàq nit. man je vais euh, bu ma demee dinaa leen wax pour ñu préparer ñëw ñibbi. ñun nag ñu ngi jóge fële joga daal. mën naa ni semaine nañ fi amagum waaye bi ñu ñëwee daal ba am ay trois jours si lañ commencé di am ay benn benn picc daal waaw moom daal affaire bi mën naa la wax daal si géej gi la daal. ndax bu fekkee lu ne si ndox mi la ndax fele-fele bi day tëmb si kaw bu fekkee tamit affaire bi dafa laal ndox mi nii dal si kaw mbaal mi moom boo ko dee kii da nga koy xëcc sa loxo kooku tamit mën na si jàppal laal sunu loxo yi waaw loolu tamit xalaat naa ko ci mën na si jaar su ndox mi ni ma la man wax daal su ndox mi la nekk daal. ndax ku demul géej du la daal comme ñun daal bu ñu yàlla defalee te ragal naa ni bu nu toogee ay fanaa ragal naa ni moom affaire bi dana set wicc si ñun pour daal li ñu bëgg incha allah ba bu fekkee def na noonu ñoom léegi ñu jéem saytu xool li si géej gi ba xam pour affaire bi si nekk daal deñ na wala deñul daal ñoom ñu jàppale ñu si loolu rek. wax jaay nonu pour dal munu mu fexé jàppale la bëgg ji normal dal. mom fekké man naka nak mu def ko nag waaw waaye fa dal metti na trop dal metti na ci doom aada ñëpp seen loxo yi ku ne dal fo xala dal ma nga fa dal xalé goor yi dañuy def at mu jot ñi ñëw fi liggéey ci fi fi mu ci man fi la dëkk sambé légui ñom bu ñu ñëwé dal lañ ñëw seen yaram yëpp yàqu ñu ne ci biir geej dal la leen dalé waaw xamul nak ban fébar la. sunu biir kër ay mool la fi né mool yi né fi koñ bi ak ah, biir dëkk ba ñom ñëpp nak feebar bi daal kenn xamul lan la waaye ku jugee géej rek ñëw sa weeram yàqu ak ay picc. waaw li ma ci xam mooy maa ngi liggéey si booru Mbour bële. mais bata bi nekk koñu ngappar noonu di tubba day gas euh, nga paru si poor bi fi lay gase léegi bu gasee ba pare day day tubba ay ton lay tubba dem tuuri booy cinquante léegi bu pare tubba suuf su baax si foofu andiwaat ko foofu tuuraat ka fa daa am ndoxi xonq ak ndoxi weex waaw ndoxi ndoxi xonq yi nag si la feebar bi nekk ak rek bi boo si jaar ay mel ni courant da ngay gis ndox yi ay jën yi nekk si si biir ñun nag dañuy jaar rek romb quoi romb rek lañ ci am mais dañuy gis li xam ne ndox mi nii dëkkul fii te bokkul fii. feebar bi nag moom euh, gaali faas yi nga xamante ni ak ak ak filaatu ne xam ne ñoo ko am mooy mooy ñi jëm zone boobu kase ñoo ko am ñi jëm zone boobu kase ñoo ko am mooy zone mbuur bi ak Joala mooy zone bi gaal yi ni ne foofu lañuy fanaane zone boobu la feebar bi am waaw te feebar nag mu ngi si kaw ndox mi. si kaw ndox mi la nekk nekkul si suuf nekkul dafa moo tax rayul jën rayul dara feebar baa ngi si kaw taxaw si kaw du du lu dikk waa genre poudre la. gouvernement bi fi mu toll nii daa day seet daa seetaan day seetaan daa seetaan nit parce que jàppalewul lébu gi dara dara dara dara dara dara loolu yàq yàq yàq kase lay jàppalee lébu gi te loolu ñaawlu nañ ko trop trop trop trop trop trop géej gi lu neex la si nit di def lu leen neex yàlla moo nu suturaal rek mais bu ñu yàlla suturaaloon kon ba léegi kenn waxatu ko fi Sénégal gi. parce que luna ngay gis luna géej lu luna pataay lan fiy tour luna luna lan fiy def ngay def produit produit simi ba nga xamantene te lan ka war tour mais dañuy ñew Afrique tour ka fay fay am ministre sax wala ñu fay kenn sax mu ñu joxe ordre sax pour ñu ka fi li ma limay ñaan nak moy mu japp mu dimbali mu dimbali population bi te dimbali eh, moli moli sol na nan jaxle nan waaw fi tol ni euh, ku ñëk li na ku ñëk yuuxu da nga ragal rek mais ñepp fi tol ni ñepp nga joy ngi no man la yuuxu rek di wax état nag mu gëna jappalé Euh, euh, mool yi parce que affaire bi metti na trop lii géej gi nga xamante ni si ba tey ñëw nan jël jën wi fi nekkoon yëpp waxatuñ dara ay feebar ñëw di leen dal xam nga ne lii moom war nañ ci gaaw jóg jàppale mool yi xam nga ñu amaat doole gaaw jóg parce que mool yi sonn nañ trop sonn nañ trop waaw état daal ñu ngi koy ñaan mu ñëw jàppale mool yi quoi parce que affaire bi doy na waar doy na waar lool. dañoo war a jàppale mool yi. jàppale jeunesse bi jàppale jigéen ñi góor ñi ak ñëpp parce que lii feebar la boo xam ne fi mu toll tamit bariwul solo lool mais tamit nañ ci jog pour jàppale leen pour ñëpp a wér. parce que état dafa war ñëw tey jàppale mool yi ñu faj leen san san ñu jox leen sans jox leen dërëm gratuit parce que ñoom ñoo dugg ci géej gi di finaan guddi ak bëccëg di uti jën di jox nit ñi. parce que bu leen neexoon ñu toog mais chaque jour ñu ngi xar seen tànk tubéy dañuy jóge dëkk ak dëkk boo demee Ndar am na ñu fa jóge ñëw fii boo demee Kayaar. Fass booy ah Lompul ñëpp ñu ngi fii di campagne pour lan ut si pour yóbbul seen njaboot kon état na jàppale jeunesse bi jàppale mool yi jàppale ñëpp daal bu ko defee nag yàlla ubbi bunti xéewal yëpp daal feebar bi nag yàlla yàlla saafara ñëpp parce que mbiru suñu borom la rek nag waaw mbiru suñu borom la